te yow ba ngay def lii nii amoo ci man benn yërmande danga am audace ne man maa ko sàcc. waa léegi man maa waxoon loolu man maa fen maa waxoon maa fen ñëw naa wax naa man maa fen le la léegi. tey nga koy doog a nangu. man maa fen sa der yàquwul de sa der yàquwul man kay man lañu wax man maay fen maa waxoon waxeet naa ko baal ma please doo ma baal. kaw baalu ma la waaye may ma jàmm. ah def naa sama dowaar nag. def na sama dowar yalla nak yow lay wax yalla yow suñu borom mawlana subhanahu wa ta'ala def na sama dowar ya wax bo lo togn sa mbokk julit boko toñe nga bal ko balu la est problème bi mom ngay mo nga gérer c'est ça stressé wax di doyna seuk ah, man kay se mënutuma waxat balu na la balu loma yak yalla la man sama yoon nekul fofu ku dem bo sol orange sa yere orange bu rafet bal ak jëkk li def ba pare naan ñu baal la ak yabaate